Hadi. Hadi. fay di fay mbooloo bu fi teew yëpp waa parcelle 1 ba 26 gis nañ seen taxawaay si combat bi gis nañ mbëri tamit niñ ma taxawoo dama leen di ñaanal rek ñu si am combat yàlla nañ yàlla may ndam si amul combat yàlla nañ yàlla may combat waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di nuyu waat suñu waa igiri waa saako xam-xam gis naa taxawaay bi gis naa lépp dañuy ñaan rek yàlla nañu yàlla dooleel waaw si combat bi. Dansé nga xam nga ki ngay bëreel bu baax. non xam naa ko kon rek. kon mom nu ma xamee ak man nima ko xamé noonu la xamé ki ngay bëral xam nga ne dafa tok ci ay défaite yow nga ne ci ay victoire nga dem jël ko té ngeen di bëré arène nationale. waaw dañ ci wowat rek préparé nañ ñu wara war préparé wu. dañ ciy woowaat waa parcelle yépp gis nañ taxaway bi mais nañ gëna jabat xamné sen ne sen rak sen xarit mom mo am combat ñu koy wajal nañ ko nak ñu ko wara wajalé dañuy ñaan rek yalla motali yene yépp yàlla may ñu ndam jël bu amul benn werante waaye. ndax pare nga xeex bi. non ñun waajal nañ ni ñu war a waajal lépp bu xeexee ñu xeex bu bëree ñu bëree ñun daal waajal nañ dañuy woowaat waa écurie bi ñu gën a taxawaat yàlla baax na bu neexee suñu borom dimanche ñu ñooy am ndam bu neexee yàlla. ngay ñëw di waaj waa parcelle yëpp ànd ak yow mu ñam agogo muy euh, ki nga xam ne moom mooy blindé mënuñoo lim ñëpp ah mbër yi yëpp ñëw ëmb la waaye nag askan bi yëpp génn ci terrain bi. kenn xeju fi est-ce que loolu da ngay yóbbu boobu ëffëri dem ba ci làmb ja ndax du la pénaliser. non ñun koñ buñ juddoo koñu làmb la koñu làmb lañ juddoo am na noo xam ne bu ñu koy ñëwee daa am nu ñuy waajalee bu ñuy ñëw waa équipe bi am na nu ñuy préparé xam na nu ñuy nu ñuy préparé yàgg nañ ñu préparé du tey la ñu mus a préparé dañuy ñaan rek yàlla na yàlla mottali yéene yëpp may ñu ndam yàlla na yàlla may ndam. ñu gis ne yow sa mbër toujours booy bëri ak sa adversaire am confiance bon ëpp da ngay lu ci arrière. non du loolu sax da fekk rek lamb yi ñoy démé nonu xam nga ñun nek igri sax xam-xam ñu am no xamné koy wajalé dañuy ñaan rek yalla yalla yi ba dimanche ak jamm suñu borom may ñu ndam waaw. lay sa adversaire. non luñ koy yobante mo dañuy wa père ñu Nous bari ku ci melni job création Moustapha Kane jàpp na si bu baax a baax a baax a baax Fadel Keita yaa na fi waa koñ bi yëpp gis nañ seen taxawaay bi gars yi jàpp na si bu baax a baax ñoom Laay Camara ñoom Karim gars yi nekk France Espagne sama gars yi nekk Italie yëpp gis nañ taxawaay bi gis nañ nit ñuy taxawoo si combat bi dañuy ñaan rek bu yàlla mottalee yéen ay dimanche dinañ toog gën a yaatal bu neexee suñu borom bu yàlla nangu lu muy maye ndam li parcelle lay ñibbi non dañ ne dañ ko moom dama dégg ñu ne dañ ko fi bàyyi te man damay nekk nekk si yoon am lu ma bëgg a prouver si làmb su dul woon moom tamit mun naa bëree keneen mais yàlla moo tombel maa ngi ñu bëre dañ koy ñaanal wér rek ba dimanche ak jàmm bu neexee suñu borom bu dimanche dina xam ni lépp dëgg la. dañu fii la mujj parcelle këll gi boo ko daan nga ñëwaat jël xanaa déggoo deux deux ziga laa tudd boo mooyee ba am beneen dama lay mayaat beneen. moom nee na deux dafa gaaw a fees. non loolu garaawu si 2020 bi lañ nekk bu bu feesee dañuy supprimer indiwaat lu bees taax waaw gis lu bees taax luñ fi indi tey. waaw dañ ci woowaat nag waa parcelle bi yëpp yëpp gis nañ taxawaay bi mais na gën a yokk gars yi nekk parcelle ñu gën ñu jàppale jëndal ñu billets yi stade bi fees dell nañu mobilisation non soxla nañ mobilisation ku gis booy fii xam nga gis nañ taxawaay bi yëpp grand frère yeeg suñu yaay yeeg suñu nijaay yeeg ñëpp ñu ngi leen di baalawaat àq tamit di leen wax ni xam nga affaire xale la dañuy ñaan yàlla rek yàlla na yàlla sottil yéene yëpp. non xam nga sooy ñëw si làmb daa am nooy ñëwee sooy ñëw si làmb daa am nuñ lay indee bu neexee suñu borom daal ñun préparé nañ lépp bu neexee suñu borom bu xeexee bàyyi bu bëree bàyyi nee naa ko bu lu mu def bàyyi pare nañ fépp. dama ko dégg ci wax mu ne waa parcelle yéen xam ngeen ko. non moom moo ñu xam xam nañ ko xamuñu ko loolu yëpp amul sens yàlla nañ yàlla may jàmm rek may di woowaat waa koñ bu baax a baax gis nañ taxawaay bi gis nañ jàppale bi yëpp yëpp yëpp. waa koñ bi yëpp gis nañ jàppale président ay bi joueurs yi nag si koñ bi yëpp gis nañ ñu ngeen ñu taxawoo si combat bi nii dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla suturaal ma ñu ndam di si woowaat waa parcelle bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di gërëwaat père di woowaat père Birahim gis nañ taxawaay bi ni ñu taxawoo si combat bi dañuy ñaan rek ñun kon ñun ay ndaw lañ di saaku si moom lu bari dañuy ñaan rek yàlla yàlla motti yéene bi waaw di gërëm grand Niass jàpp na si combat yi Moustapha Kane yaa na sama gars yi daal jàpp nañ ci combat boo xam dañuy ñaan rek dimanche yàlla may ñu dem waaw loolu dañ ciy woowaat waa parcelle di la wax ni ñun ay ndaw lañ promoteur bi xale la ay xale te soxla lañ mobilisation boo xam ne bu ñëwee stade promoteur bi dina bëgg te suñu buntu làmb mun na tijjee ko ci côté yi dañuy ñaan rek yàlla na yàlla sotti yéene yëpp te yàlla may ñu ndam bu neexee suñu borom. kàddu bu mujj bi. mujj bi mooy dañuy dañuy waat wa ñu fi teew gis nañ ñi ngeen ñu taxawoo mbëri yëpp yëpp yëpp yëpp nag bàyyiwuma kenn waa indépendance bi bàyyiwuma leen ñoom ñëpp maa ngi leen di woowaat sama sarax yi maa ngi leen di woo waa dal jàmm waa mbayaar bi ragalu yoo noonu di woowaat ñëpp di la a seen rax seen doom seen xarit moo xew le dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam si barke alxuraan yàlla nañu yàlla suturaal may ñu ndam